yonent wa sallam waxaat ne yawmal jumaati am na ci benn saa boo xam ne saa si nangu ñaan la képp ku dajeeg moom rek boo ko ñaanee yàlla yàlla dana la may yonent waxaat ne bésu aljuma ci la yàlla bind aadama bésu aljuma ci la yàlla dina ma tukkalee àdduna borom xam-xam yi ñu ne waxtu wi nga xam ne nag ci la àdduna ma tukki mooy saa si mujj ci aljuma te mooy fi jant bi di soxee yàlla may ñu nag njiit lu mat njiit muy Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu yàlla jagleel ko ci baaxab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii maamam nga xam ne lépp lu mu am moo ko ko jox mu may ñu ñu tànn waxtu woo xam ne moom la yonantu wax lim wax mu ne ñu fu mu joteetee na ngeen dajee di ci tudd yàlla te ku ne xam na ne xayru kalimatin laa ilaha illallah baat bi gën ci baat yi mooy laa ilaha illallah loo xam nag ci bés bi nga xam ne bu yàlla namoon na tukkal àdduna te ab tiijaan fekkee ko mu ngi koy fekk ci tudd yàlla te yonent wax na ne baat la boo xam ne ku mujj ci sa làmmiñ rek aljana war na ñeexal la kon gis nga Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu dafa rëdd rek yoonu texe jaarale ci taalibeem mi sonn dag ñoom ci leneen lépp loo xam ne Seexu Tijaan sant na ko taalibeem bu ko defee rek xamal ne wàccoo naag la ko yàlla sant wàccoo naag la ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi sant yonent dafa waxoon bu yàgg isa marartum bi riyaadil jannati farta'u waxtu wu ngeen rombee dër ci dëri aljana yi na ngeen ca for xam nga ne dëri àdduna bii tey kuñ waxoon ne soo demee ca marché ba kantin bu gën a baax lu muy jaay gën a wëlëre soo fa rombee jàddal nga seet loola neex nga jël yóbbu xam nga ne suñ ko waxoon dee kenn ku ne da nga sawar a dem ca marché ba yonent nag ne saaba yi dër boobu di dër aljana waxtu ngeen ko rombee na ngeen ca for te yon eh, saaba yi ñoom bu ñu déggee ci yonent luñ xamut dañ ko koy laaj ñu ne ko yaa rasulallah wa ma jan xaala iloqu sikri lan mooy dëru aljana yonent mu ne mooy géewu sikar géewu sikar boobu nag yàgg nañoo gis ay mbooloo daje di tudd yàlla waaye ilax bi nga xam ne moom la yonent tuddee ne mooy géewu sikar bi nga xam ne dër la ci dëri aljana yi boobu moom Seexu Tijaan la ko yàlla jagleel mooy liñ baxee ko léegi borom xam-xam bi ñu waxee ñu ne ilax mooy géew boo xam ne ñeenti koñ lay doon ñeenti sàppe lay doon te dañuy jàkkaarloo xoolal rekk bi ñuy wasifa ak bi ñuy xadara juma kenn ku ne nekkul fu la neex rek nga toog jublu déedéet defuñ géew yi tamit bu rond waaye dañoo def géew bu carré ñi ci penku jàkkaarloo ñi ci ndey eh, sow ndax ñi ci penku jàkkaarloo ñi ci sowu ñi ci sowu jàkkaarloo ñi ci penku ñi ci ndeyjoor jàkkaarloo ñi ci càmmooñ ñi ci càmmooñ jàkkaarloo ñi ci ndeyjoor ñu ne géew boobu mooy dëri aljana ma lan moo xam xamlal nit ñi tariqa Seexu Tijaan importation bi mu am ak njëne li ci nekk Seexu Tijaan radiyallaahu anhu ne ashaabi ashaabul wasifati te yonantu sallallahu alayhi wa daf ko waxoon ne ko Seexu Tijaani waxoon naa la ne nga wax say saxaaba yi ne leen bu ñu lorante de ndax buñ leen lorantee rek danañ la lor yow Seexu Tijaan te ku la lor dana ma lor ku ma lor da lor yàlla te yonantu yàlla waxoon na ne lewaatoo naa ak kuy lor sama wàlliyu man aasaali waliyan faqad aasantuhu bil bi képp ku lor sama wàllu yi rek déclaré naa ko guerre na ko xóor ne su fekkoon ne samp naa ndënd dafa mel ni mooy ki ko sempi su ma tàlloon suma loxo di wax ku ma ñemee dafa mel ni ki nga xam ne moo wax ne mooy lor wàllu yu yàlla bi kooku moo wax ne ñeme naa la lu ngeen xam na ku dew lewaatu ak lan ngeen xam ci ku lewaatoog ki nga xam ne asamaani juróom-yaar suufi juróom-yaar mu ngi ci loxo mu téye ko kooku xam ngeen ne kum lewaatoo dana la daan waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa wax seexu tijaan ko sa sahaaba yi samay sahaaba lañ ashaabu ko ashaabi wa talaamisatu ka talaamisati wa fuqaraau ka fuqaraai say sahaaba samay sahaaba lañ say taalibe samay taalibe lañ say fuqaraaw samay fuqaraaw lañ fuqaraaw yi nag mooy ñi nga xam ne xamuñ benn soxla la mooy yàlla mooy ñi nga xam ne xamuñ dara lu dul yàlla ñooñu la ñu tuddee fuqaraaw Baay waxoon na ne ku xam yàlla kooku rek a xam soxla ndax mooy ki jàkkaarloog la nekk ci péyeb yàlla ba ci taar la nekk ci péyeb yàlla ba ci njëriñ tam soxla woo yépp kooku mooy ki xam soxla ku moom dafay làmbatu soxla waaye amagut lu ko mat soxla gannaaw Seexu Tijaan nag wax na yonant su ne yonant wax na Seexu Tijaan ne ko waxal sa taalibe buñ lorante ndax suñ lorantee lor la lor ma lor yàlla moo tax mu waxoon ne ko yónn Seexu Tijaan ne saxaaba yooyu yonant wax ne sama yos ñooy yosam mu ne mooy ñi nga xam ne ñooy géew ci wasifa yi asxaabi asxaabul wasifati moo tax képp koy taalibe tijaan soo fonkee wasifa boye boo nga xam ne yàlla moo gàddu say mbir yonentu sallallahu alayhi wa dafa wax ne képp ku ngeen gis mu fonk julli di ko defloo njabootam ñee ko te xam ne yàlla ko gàddul lépp wërsëg waaye ku ngeen gis mu sàgganee julli sàgganeel ko njabootam yërëm ko kon taalewe tijaan bu ngeen gis mu fonk wasifa bu ngeen xeboo ñee ko waaye taalibe tijaan bu sàgganee wasifa boo xeboo yërëm ko Mawlaana Cheikh Ahmada Tijaani radiyallaahu anhu dafa mas a am kuñ nemmeeku ci wasifa wi gisuñ ko nemmeeku waat ko gisuñu ko maanaam seetlu nañ ko ci wasifa wi ndeka teewut ñu seetluwaat ko ndeka teewut bi ko Seexu Tijaan laajee mu wax soxla bu mu doon doxi mu ne ko xanaa xamoo ne wasifa ku ko fi bàyyi dem di topp ji soxla soxla ba du faju soo bëggee sa soxla faju dangay toog ci wasifa wi soo paree soo doxee ci soxla ba soxla ba dana faju boo toogee it yàlla dana la ko fajal Mawlaana Cheikh Ibrahim Fall wax nañ ne dafa mas a toog benn bés rekk dégg yàq bu am ca tool ya mu daw dem di dàq yàqkat ya ca tool baay ba ngir bañ lu yàq tool baay waaye mu guddee ca ñu lal wasifa bi rek baay di xool gisul baay Cheikh Ibrahim Fall mu xool xool gisul ko bañ wasifa ba pare bi bàyyi Cheikh Ibrahima Fall ñëwee bàyyi ne ko foo nekkoon mu ne ko ah, fekk nag moom bi mu dàqee yooyu ba mu pare xam na ne balaa xegg dana fekk ñu wasifa moom mu toog def wasifa boppam bi mu wasifa pare daal di ñëw bàyyi ne ko wasifa woo de mu ne ko ankay ah, wasifa naa mu ne ko déedéet wasifa woo ndax gisuma la ci mbooloo mi mu ne ko waaw dama demoon ca tool ya doon dàq yàqkat ya ca tool ya guddee ma lal sama wasifa bopp wasifa doog a ñëw bàyyi ne ko xanaa xamoo ne wasifa ku ca ku ko def yow kenn yaa ngi mel ni wasifawu la man lam yahaduril wasifata fa ka annama lam yatawasaf lam yatawaf lam yatawafas lam yatayassaf képp koo xam ne teewuloo ci géew bi wasifa bokk ak mbooloo mi ndax dem def sa géew a bopp dem def sa wasifaa bopp ñu ne mu ngi mel ni yow wasifa wu la te lool kat yonent waxoon na ne laa salaata li jaaril masjidi illa fil masjidi képp koo xam ne dangaa julli yow kenn demoo ca jàkka ja te yaa ngi bokk ci dëkkandooru jàkka sariya nag dafay wax ne boo commencé compte sa kër jëm ca jumaa ja boo ci xamee ñeen fukk kër rek xam na ci kër ci jumaa ja nga bokk naka noonu tamit waxtu woo compté ñeen fukki kër daa tàmbalee ci sa kër ba ca kër ak ñeen fukkeel ga diggante boobu yëpp ñu fi dëkkee say dëkkandoor lañ danga leen war sàmm dang leen war a moytu dang leen war a dimbale dang leen war a jéem a xaar léegi nag yonentu wax loolu imaamu Malik mu ne xam ne ñaar fukki at ak yu tegal jàpp na ne képp ku jaa julli te jullee wala ca jàkka ja rek amoo julli ba benn bés rek mu gis benn hadis yonentu yàlla Muhammad mu ne julli mbooloo gënee na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom beneen riwaaya mu ne gënee na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom ñaar mu ne ah kon kay ndeke eh, baax na kon danga cey déggee ne taalibe tijaan su wasifaa te ca mbooloo ma bu amee wasifa it amut xaasiya bi nga xam ne moom lañ soxla ci taalibe bi kon bu ñu yàlla mayee tawfiq ñu dajee def xadaratul jumaa baxee ko ci julli timis lal xadaratul jumaa wala xadaratul jumaa lañ def ba pare julli timis lal wasifa Mawlana Cheikh Assane Deme daf doon wax ne boo gisee ñuy lal malaan ci wasifa nekkut ne suñ ko defut wasifa wi du baax suñ wasifa woon talaluñ benn malaan yi dana baax ndax Seexu Tijaan wasifa na talalul malaan waaye malaan mi li tax ñu di ko lal mooy teew ak yonent yàlla Muhammad ci géew bi ak saxaabaam yi moo tax ñu ne képp koo xam ne yaa ngeel wasifa boo amee malaan lal ko ndax baay wax nañu ne ku am gan goo fonk danga ko teeru su ñëwee danga ko lalal yenn borom xam-xam yi ñu ne waxtu woo jàngee say sooy jàng sa wasifa ba jàng sa astaghfirullah asim salaatul fatihi laa ilaha illallah boo demee ba ci jawharatul kamal lalal sa malaan bàyyi mu ne gan goot fonk soo koy lalal doo xaar ba mu yegsi nga doog di ko lalal ndax soo ko teelee lal mën naa xam mu laalee ko ci diggante bi boo ko teelee lal mën naa xam xale yi nekk ci di ci fo ba bu ñëwee du ko fekkee ni nga ko defee woon mu ne déeréet waxtu woo xamee ne gannaaw seexu yonent bi mu ngi teew ci jawaratu kamal bul xaar ba sës ci jawaratu kamal bu laa ilaha illallah di bëgg a jeex rek lalal moo tax toujours da fekk ñuy lal bu desee fanweeri per fanweeri laa ilaha illallah ñu lal ndegam yonent dafay teew Aboubacar Omar Ousmane dafay teew te ku ne xam na ne fu yonent te teew fa Ousmane teew fa Aliou teew fa Seexu Tijaan fa teew ñu ne kon booy lal malaan na lal malaan mu yaatoo toogaayab juróom benn nit ndég teeru gi ngay teeru yonent ak soppeem bi ak saabaam yi kon buñ eh, Cheikh Assane Dem mu bu jawartu Kamal bu ñu amee juróom-ñaari per ci la yonent di teew te loolu moo ko wax ñu ne nag gannaaw bu yonent ñëwee ci juróom-ñaar juróom-ñaareelu jawartu kamaal ci lay teew ñu ne yow sa mii jàng jawartu kamaal su fekkoon ne yàlla dala may kàttanal bi nga xamee juróom-ñaari per nga continuer nëppeetu la di jàng jawartu kamaal boo ju doon compter ba buuf tabaale tamit yonent dootu teqale ko yow yaa ngi toogaaleeg moom Cheikh Hassane nag mu ne gannaaw xadaratul juma moom bu ñuy wax awusu billaahi mina seytaani rajiim rek yonenti teew na mu ne looloo tax moom mu tànn lal malaan mi ci xadaratu jumaa xam nga lu tax cheikh yonent sallallahu alayhi wa sallam cheikhu Tidiane dafa am lum jël ci moom loo xam ne wàllu yëpp jaar nañ fi te jëluñ ko ci moom mu ñëw jël ko ci ñoom ni nga xamee ne Mawlana Cheikh Ibrahima kasaalika na ko noonu waaye ki nga xam ne mooy borom yëf moo digoon Cheikh Assane Deme ne ko sa takkoonu lakk sa anun xasimun fii tariqati tiijaan yéet danga am mbir mu màgg ci tariqa Seexu Tijaan moo tax yàlla daf ko ci may ay sew-sew yoo xam ne pour nga dugg ci téere yi ba fekk ko fa dana xaw a jafe dafa waxoon ne man yàlla daf ma may fattu may ma fahmu lii fatu wal fahmu fii tiijaan tijaaniya xam naa ci fatu xam naa ci faxam nit na bu xamee ci mbir fatu xam ca faxamu mën na caay feeñal loo xam ne fekkut ko ca woon te du tere ku ci jaar jaar ci yoon looloo tax ñu lal malaan mi ci biñ tàmbalee kon ñu ngi leen di ndokkeel gannaaw biñ ndokkelee suñu bopp di wax ne xàndandoor lii lay jëriñ Mawlaana Cheikh Ibrahima daf ñoo may may goo xam ne bu doon lu ñuy sàkku ak lu ñuy fàggu kenn ku ne man ngaay seedeel sa bopp ne doo ko xam muy yàlla mi nga xam ne moom la ñuy bàyyi jagleel bu doon njëkk kenn mënu ko jënd bu doon kàttan kenn mënu ko fàggu bu doon xel ak pexe xamut kenn ku ci mën a yegg moo tax Baay Malle Caam mu baax mu nga xam ne dafa xam Mawlaana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu ne bëgg baay mooy marchandise moo xam ne képp ku koy ku ko dugal ci bitik ku ko dugal ci magasin lu borom magasin ba mën a xam soo koy jandee te jox ko bëgg baay dana la dana la deseel weccet dana la jox lim xam lépp te dana la deseel loo xam ne mënu la ko delloo kon nag ñu ngi sant yàlla di gërëm ay ndaw yoo xam ne ndaw yoo xam ne mënoon nañoo tal leneen te bu leen neexoon nit ñu tal ko waaye mu mel ni dafa am ku leen di ñoddi kuñ mënta xuuteeg moom ak ku leen di puus kuñ mënta bañal bu waxtu jaamu yàlla jotee rek xale yu tuuti ñooy jóg kenn di leen wax jóg leen dem wasifa kenn du leen wax dem leen xadara waaye waxtu wu waxtu bi jegesee koo seen muy sangu di solo aka diwu rek wala di solo rek bu laajte xama ne wasifaa ko tax di waaj xadaraa ko tax di waaj waaw ku mel noonu nag su la ko yàlla wonee boo bëggee lu baax ndax roy ci moom buy waaj nga waaj bu jógee nga topp ci kawam ma ne loolu jar na ko de ndax lu tax loo mën a jàpp bam tere laa dem wasifa ji loo mën a jàpp bam tere laa dem xadara sa waa ji dem xadara dana ñëw def li ngay bu bokk yow li nga xam ne moom nga jàpp ba demuloo kon loo koy ëppale kon kañ moo lay far ëppale dafa am benn waay boo xam ne dafa nekk ak benn waay ñëpp bokk ci benn kër gi bu julli jotee rek ñoom ñépp ñu jàpp julli waa ji def tasab bu gaaw ne ci ay affaire kii ne moom téye kurusam def tasabam def ay lawraatam def ay nangam def ay nangam def ay nangam bam pare ñoom ñaar na ñu mel ni dañoo xaw a wuutee ki nga xam ne dafay def tasab bu gaaw bi te du ca teg ay lawraat mel ni borom lawraat yi daf ko xaw a giten naa daf ko xaw a déranger daal ñii wax nag ba xegg ci benn waaye borom xel mu mat mu ne ki nga xam ne dafay def tasab bu gaaw mu ne ko waaw yow bi nga jógee jàpp ndax kii jógut jàpp mu ne ko ankañ ah ndax bi ngay jullee moom kii julliwut mu ne ankañ ah ndax bi nga tasabee moom tasabul mu ne ko ankañ ah mu ne waaw léegi bu ñu leen fayee seen jàpp meeg seen julli meeg seen tasab bi ndax da nga ko ëppale mu ne déedéet mu ne waaw gannaaw nag moom bi mu defee tasabam lawraatam yim ciy teg te yaa ko gis xam nga ne dafay sàbbaxal yàlla xam nga ne dafay jàng alquran xam nga ne dafay def salaatu ala nabi moom suñ ko fayee loolu mu boolee koog li ngeen bokk est ce que du la xëppale mu ne ko xànkay ah, mu ne ko est da nga nangu xëpput la doole xëpput la xel ngeen bokk li ngeen def ñuy fay ñu koy xëppale yow mu lay xëppale yow ndax tax nga nangu loolu mu ne déedéet mu ne kon nag danaa jéem a xam bu defee ay tasabam ba pare yi muy cey boole ma itam ndax ma boole ko ci ndax bu ëllëgee ma bañ a bokk ci ñi ñuy xëppale man ma bokk ci ñuy xëppale xam nga loolu dafay am xam nga nettali nañ ne benn waaye dafa ñëw ci benn waay benn mbooloo ne moom de daal dafa bëgg dugg ci gannaaw bi mu doonee julli dafa bëgg a dugg ci daal ci kuréel yi te xamul ban kuréel ci la war a dem ndax kuréel bu nekk boo demee rek keneen naan man la man la man la man la dàq ay moromam mu ne ko soo bëggee xam ban kuréel ngay war a àndat dangay fexe rek tànn benn kuréel bu la neex nga njëkk a ak ñoom na ñuy def nga di ko def la ñuy wax nga di ko déglu mu ne mu dem xam benn kuréel bu mu àndat ñu julli tisbaar ñu xam ci ñuñ commencé dal ku deful nangam ku deful nangam ku melul nangam ku melul nangam coow coow coow ba seen xol sedd ñu julli tàkkusaan ñu defaat nañ ko defee woon timis jot ñu defaat nañ defee woon mu ne waaw xaaral ma dem ñam ñële ba xam mu dem ci ñële ñu julli tisbaar kenn ku ne soxlawu sa mbiram bopp tàkkusaan kenn ku ne soxlawu sa mbiram bopp timis kenn ku ne soxlawu sa mbiram bopp ñu julli timis mu ne mu gis rek ñu lal benn mbalaan mu ne mu toog comme niñ toogee mu dégg ñu xam lu ñuy jàng faatiha ba mu jeex mu dégg ñu jàng ci ay teg ci ay baat mu dégg ñu def salaatu ala nabi mu pare ñu dégg mu laa ilaaha illallah ñu pare ñu déggaat mu tegaat ci yeneen yeneeni baat bañ paree ñu ñaan daal di jublu ci geexe nodd li xaam julli geexe kenn ku ne tasaaroo mu ne ah man de sama waa ji la ma waxoon ne ma dangay dem ci ñi ay fan dem ci ñi le ay fan nga xam koo ce war a topp waaye ñii daal benn heure bi ma ànd ñoom doy nañ ma xaaral ma topp leen ndax gis naa leen ne ñoom li leen doy mooy yàlla ak seen mbiri bopp dégguma ñu tudd kenn dégguma ñu taas kenn kon nag ku xam nag ku la mën a tënk ba doo tooñ doo taas kenn doo soxlaxoo mbiri jàmbur soxlaxoo xéwénal sa mbiri bopp kooku dëgg dëgg dimbale na la yonant sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne nit dafa war a xittewoo xéwénal mbiram boppam balaa mooy soxlawoo mbiram keneen alquran waxoon nañu ne bali insaanu ala nafsihi basiratun kenn kone sa yàgg na xam sa bopp yow li nga manqué la xam nga ko li nga bëgg xam nga ko pour nga topp ci li nga bëgg ba xam ko li nga manqué li nga fexe ba complété ko loolu war na laa doy soxla ba ngay seet kële heen lim xam lu tax mu xam ko kii lim manqué le lu tax mu manqué le ko bu ci yoonu kenn nekk yonentu wax na woon waxoon na ne jamono ngi ñëw kenn ku nekk sa diina nan ko matt ci sa digge su ngeen ko defut danañ fexe ba yëlëb seen loxo ci diina te loolu mooy lan képp koo xam ne soxlawu la ci sa àdduna bi dara la mooy topp loo wax nit loo seet ci nit lu ñaaw nga nga nga wax ko te loo gis ci nit ci lu baax doo ci wax dara moo tax waaje woyoon na ne ah waa jamono moo dee waar man de lépp loo xam ne lii gis nañ ko ma def ko ci lu baax wala ma wax ko ci lu baax rek ñëw suul waaye bépp faux pas buñ ma gisaa rek yéebaane nañ ko ca kaw dafa mel ni kon loolu mooy suñ jamono ji yow daal bul bul rëccale boo rëccalee daal rajo yi dañ la jël télé yi dañ la jël soo jullee jàng alxuraan ñu gas te kañ wax dëgg yàlla nit ki jàng alquranam ki julli jullim dajee tudd yàlla kooku kañ ñëpp ko war a eh, yebaane ca kaw ha kii ni mën a jàngi alquran he kii ni mën a jullee kii kii ni mën a nangame kii ni mën a nangame soo bañee ku la nax nga dem defi noonu moom ni ñoom Sirna Omar yonent daraan toog ba guddi rek mu jóg def ab tournée ci biir saaba yi mu ñëw ci kër sidna Abubakar fekk Abubakar a ngi la di jàng ndànk mu tourné dem ci sidna Omar fekk Omar a ngay yuuxu ca kaw naafilaam gi xam nga saaba yi ku ci xëyaan da ngay dem nuyu yonent sallallahu alayhi wa sallam soo xamee looy laaj nga laaj soo xamee loo gént nga nettali ko yonent daraan def bu jullee suba ba sëlmal jàkkaarloog taalibe yi dafa wax lu ngeen gis lu ngeen gis kenn ku ne man de bii gis naa nangam ak nangam mu firil la nga dem ñu ñëw nuyoo si nag yonent na Aboubacar yow de démb ñëw naa sa kër maa ngi la fekk yaa ngay julli yaa ngay naafila waaye li nga doon wax yaa ngi doon wax loo xam ne daanaka kenn déggut ko mu ne ko waaw dama doon déeyaalee koo xam ne mu ngi may dégg kon jarul may yëkkati sama kàddu mu ne Omar yow de démb ñëw naa sa kër fekk naa la yaa ngi naafile waaye yaa ngi wax ca kaw lu tax mu ne ko dama doon dàq say ngëmmentu ci sama bopp di bëgg a fiirloo sama dëkkandoor ñu dégg may julli ci guddi gi ndax ñu jog ñoom itamit julli yonent sallallahu alayhi wa sallam ne Abubakar booy jàngati waxa yëkkati sa kàddu tuuti ne Omar yooyu tamit sooy jàngati wàcceel sa kàddu tuuti xayrul umóori aw sa tuha waaye Baay dafa wax ne Cheikh Omarul Fuuti biñ ko waxee laata eh, eh, bul wax ca kaw bul wax ci suuf jëlal ci diggante wax ca kaw ak wax ci suuf aw yoon nga jaar ca Cheikh Cheikh Omar Fouti mu ne moom gisul ci diggante eh, wax ca kaw wax ci suuf la mooy wax ci kaw rek moom gisul diggante wax ci kaw ak wax ci suuf la mooy wax ci kaw kon kañ alhamdulilah rabil alamina mënoon nañ di def suñu wasifa ni ñuy defee suñu laasim mënoon nañ di def suñu xaddara juma ni ñuy defee suñu laasim laasim kenn du xam ci loo nekk wasifa nag buñ ko doon def kon duñ fiirloo ñu baax ñi ñu ne waaw ñun yonentu de moo ñu tudd eh, moo ñu jul eh, yàlla de moo ñu tuddloo yàlla yàlla moo ñu baluloo yàlla yàlla moo ñu julliloo ci yonent bi te ñii kat ñu ngi balu yàlla ñu ngi julli ci yonent bi ñu ngi tudd yàlla buñ doon def ndànk kumpalay doon kenn du xam ci luñ ne waaye nit ku baax ku dégg ku naan astaghfirullah la asima la si la ilaha illa huwa astaghfirullah al-azim allasi laa ilaha illa huwa hayyul qayyum tax yonentu waxoon ne alquran waxoon nañu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaran yursil sama aleykum midraaran wa yumditkum bi amwaalin wa banina waj'al lakum jannatin yow waxal dama ne astaghfirullah waxal astaghfirullah rek yàlla wàcc wàcce leen taw bi su ngeen waxee astaghfirullah taw wàcc te su ngeen waxee astaghfirullah ca wàcc taw mooy génnee gàncax gi te tamit bu ngeen waxee laa yàlla jox leen ay doom su ngeen waxee astaghfirullah seen tool yi naat waaw ki dégg kii wax loolu mu xam ne kon kat ndeke asamaan bii di taw nga xam ne buy taw kuy bay ku bayul yëpp ñoo ci xema waaye ku ne xam ne ne bu sottee ku bayul danga jëriñu jullit ak ku jullit ñoo ci xemoo waaye bu sottee jullit dana ci jëriñu ku jullit dana ci jëriñu loolu yow da nga ko dégg pare di ko di xañaanee ku koy wax xanaa kañ da ngay fexe bokk ci ñi tax asamaan di taw da ngay fexe kañ bokk ci ñi tax doom yi di judd xanaa da ngay fexe kañ ba tax ñi tax ñi tax gàncax yi di sax di meññi yonent sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku wax julli ci man benn yoon danaa julli ci yow fukki yoon boo jullee ci man fukki yoon ma julli ci yow téeméer yoon. boo jullee ci man téeméer yoon ma julli ci yow junne yoon soo jullee ci man junne yoon nag maag yow ëllëg ca àllaaxare sama mbagg sa mbagg ñooy riiso wante de waxuma leen damay dugg nga topp ci ma ko déedéet waxuma ne dama lay jiital de déedéet waaye dañooy leeroo maa yow dugg ci biir aljana waaw xanaa kañ ab jullit war warta bëgg lu ëpp dugg aljana xanaa bu demee bay dugg aljana warta bëgg xana ndor bu ëpp yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu yàlla ak la koy may kon moo tax tariqa tijaan dafa ñëw ngir li yonenti yàlla muhammad doon sant jullit ñi tëmtaleen mu yombala leen ko yow xam nga ne nit ñaa ngi julli yaa ngi julli xam na ñoo xam ne ñu ngi sàgganee julli waaw ndax koo xam ne kii dafa préparé pour laasim gannaaw tàkkusaanam est-ce que dana sàggane tàkkusaanam kiy préparé wasifa gannaaw timis est-ce que dana sàggane timisam te julli yi gën a jafe na ñu ngi noonu xam na ñoo xam ne tàkkusaan ñu ngi leen di fekk ci terrain ba xam na ñoo xam ne mu ngi leen di fekk ci marché ba yow taalibe tijaan nag fu tàkkusaan jublu see rek xamal ne yow pare nga julli ba pare def sa lum néew néew sa fukki mi yoo xam ne da nga ko ci def bu ñaa muy ci ngay def sa laasi fu ñu julee timis li gën a bëri ñu leen di leen di fekk ca terrain ba mu ngi leen fekk ci marché ba yow timis fekk la ci sa kër wala mu fekk la ci saa bi fekk la ci jàkka ji wala ci jumaa ji te pare nga teg fa buy fukki minute wala ñaar fukki minute def sa wasifa te doo def wasifa rek dem dem taalibe tijaan boo gis mu wasifa dana ci jokkalante géexe waaw jiital timis jokkale géexe li la koy may loolu kañ wax dëgg yàlla julli war na koy fonk moo tax Seexu Tijaan dafa ñëw dimbale ñu ci li ñu yónnante sant ndax ñu man koy def bu ëllëgee duñ dajee ku ñu naan lu taxoon defu leen la ma leen sant kon Seexu Tijaan dafa dimbale lislaam ñu bari nag dañoo foog ne Seexu Tijaan dafa ñëw paralysé nangam nangam eh, xuraafaat yi nangam nangam waaye dëgg-dëgg daal xuraafaat daal ku ko doon seeti tamit bu lënkalooxee julli nga war koo mën a rafetlu xuraafaat bu lënkaloo ak tudd yàlla nga war koo mën a nangu kon ñu ngi leen di ndokkeel gannaaw buñ ndokkeelee suñu bopp di gërëm baay Modou mii nga xam ne mën nañu wax ne wax dëgg yàlla moom moo def effort bi tax ñu taw tey ñu teew ci jataay bi eh, yëgaloon ngeen ma xadara jumaa bi waaye moo baxee ko këram ñëw ba fi ma nekk mu jël si ma ne ma nañ dem ci xadara ba ñu ngi ànd ak Baye Ngom nag yaakaar naa ne xadara bi dafay ànd ak daayira su ko defee ñu ngi leen di ñaax ci lu ngeen mën a fonk hadara ngeen yokk ko lu ngeen mën a fonk daayira ngeen yokk ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne jataaya ngi nii boo xam ne ku texeaadi du toogaaleeg ñoom fépp fu ñu tuddee yàlla ku texeaadi du fa toog yàlla dafa am ay tourisme yoo xam ne daf leen di wax dem leen ngeen wëri géewi sikar yi xam nga da ngeen fi gis léegoo-léeg ngeen gis ay boromi oto France lañ baxee ko di eh, da xam lu ñuy wut rek dégg ko Sénégal rek dañ leen jaraat dawalee seen oto ba fii da nga gis ñu yore ay pédal vélo pédal France lañ baxee ko wala fu gën a sori France da xam lu ñuy seet rek te dégg ne mu ngi fii Sénégal bu ñëwee ba Sénégal tamit buñ ko déggee ne mu nga Kaolack dana leen jaral dem ba bu buñ ko déggee ne mu nga Tamba dana leen jaral dem ba Tamba malaaka yi noonu lañ mel xam na ñoo xam ne ñu ngi jog dem poosé seeni laaf xutuñ ci àdduna dara la mooy géew bu mel nii ku ko njëkk seen wala nga njëkk koo gis dangay wax ne xàllumoo ilaa hawaa ijinaa ñëwaleen liñ doon xuta ngi nii suñ soxla baa ngi suñ soxla baa ngi suñ ñëwee fekke ñu ngi salaatu ala nabi wala ñu ngi jàng alquran wala ñu ngi tudd yàlla wala ñu ngi waxtaan ci lislaam wala ñu ngi waxtaan ci diina dañuy wër cercle mbooloo mi di yëngal seeni laaf yërmandi yàlla di wàcc waxtu woo xamee ne nañ allahuma salli ala sayidina muhammadin bu ñuy wax subhaana rabbika rabbil istati ama yasifuuna rek wa salaamun alal mursalin rek dem nañ ñu ne nag buñ demee seen borom laaj leent fekk moo leen gën a xam lu ngeen gis ñu ne ah ñun de gis nañ mbooloo mu dajee luñ doon def ñu ne dañ la doon tudd ndax ñaan nañ ma ñu ne waaw ñaan nañ la de luñ ma doon ñaan mu ne aljana ndax gis nañ aljana ñu ne déedéet mu ne xellante woon ñu gis aljana kon noonu danañ gën a xiir ci ñaan giñ ma doon giñ koy ñaan lan lañ ma doon muslu ñu ne safara ndax gis nañ safara ñu ne déedéet yàlla na xellante woon ñu gis safara kon danañ gën a mën a muslu ci safara waaye gaa yi ngi seen lu baax lépp nangu naa ko luñ defoon ci safaan soppi naa ko muy lu baax te jéggal naa leen seen yu njëkk ak seen yu mujj malaaka yi ne ah diw sàngam kan mu nga woon ci jataay bi waaye daroon doxantu rek dégg sikar si mu ne sikar si neex ak moom rek mu ne xaaral ma toog déglul seen sikar si ñii seen leer gi daf ma neex ñii seen baat yi daf ma neex waaye da taxul sikar si taxul koo ne ñëw de yàlla ne hum qawmun laa yasqa bihim jëlisun xanaa xamoo ne daayerekat yooyu ñooy ñi nga xam ne ku texaadi du toogaale ñoom ku texe tooga ñoom rek texe waaw kon bu nit ñi xamoon lii liñ leen di may ak li ngeen leen di defal ne ko noon ku dégg sikar da nga sol sa dàll ngir dem teew bokk ci jataay boobu nga xam ne yàlla dana la ci jéggalaale kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yal na yàlla nangul ñu ci barke yonent yàlla Muhammad yal na nekk sa ràmm ci mbooleem luy jafe-jafe yal na ràmm yal na ràmm sa lépp luy gàllankoor yal na yàlla saafaraaxee ci mbooleem jàngoro yi yal na yàlla faj xaajo yëpp ba fajaale xaajo yi mbooleem ku dégg si karsi yal na yàlla saafara jàngoro yi ba saafara waale mbooleem ku dégg si karsi ci barke yonentu yàlla Muhammad yàlla am na ko mën na yal na ñu ko defal ci barke yonent Seexu barke Seexu Tijaan ci barke Baay ci barke Seex Asan Dem ñu ngi Eh, di leen baal xaq di leen balu àq eh, di ñaan yàlla ñu yàgga daje daje yu mel ni yeen allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim allah ala ala ya allah allahu ya